حمدي وزوري لمن كل بي زارا billahi min asheytaani irajimi bismillahi irahmani irahimi wasala allahu taala ala seydina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama taslima barke borom tuba barke borom tuba barke tuba borom saalihu mbokk yi ñoo leen di nuyu leen ziare te am baax fii ñu leen baaxoo di leen nuyoo mooy seen gis na TV suñu émission bi di Bamba fépp fépp ci lu baax saa su ne ñu jëli ndaanaan jàkkaarloo moom fii xawal ko askan wi tey nag ñu doxantu woon ba Pikine jàpp Géejawaay di banlieusard ñu gën ko miin ci Serigne Saliou Diagne salaamaaleykum Serigne Saliou Diagne. waaleykum salaam wa moo sax maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax. Mm-hmm. di la ñaanal jàmm ak tawfeex di ñaan suñu borom boole ñu ko defal. Mm-hmm. di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waa adduna. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Sénégal. Mm-hmm. ci suñu nuyoo. suñu xalifa généraux yi nekk ci biir réew mi. ñaan suñu borom mu dolli leen a dëgëral. bali seen yéene ci umma islam bi yëpp ñu defe ko nam leen soode te ànd ko ak mboolem taalibe di nuyu bu baax a baax waa Actubimi TV euh, di ñaan suñu borom mu sàmm leen ban eggale seen yéene defe ko nam leen soobe di nuyu ahlu Bawol gépp waa Lambaye di leen leen ñaanal jàmm waaye di nuyu soppe yeeg am di jàmm yeeg wëllër yi fépp fuñ mën a nekk te di ñu teewlu di la delloo kàddu gi. jërëjëf euh, Serigne di nuyu mboolem seen waa Bawal ñu ngi leen di nuyu ni ko waxee te jub Lambaye di ñetti góor yàlla yooyu nga xayte ni sëñ Mor Maana Mbaye sëñ Aliou Diouf Lambaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu leen ziare baax sëñ Babacar bay di ñaan saa borom yàlla dafa ñu tawfeex ñu tàmbali seen émission ji bisimilah génn ci alhamdulilahi rabbil alamin di ziare seen ñi nga xayte ni ñoo ngi ñuy teewlu ci émission bi waaye diaspora bi ñu ngi leen di nuyu bu ñu nuyoo Serigne Saliou Der Kazaka Serigne Mama Kazaka Baye Papa Dam ñoom ñi nga xayte ni saa su ne ñoo ngi top suñu émission bi di bamb Fekku Serigne Saliou Diagne ñi jàkkaarloo jawti la seetaan bo leen bëggoon wax Serigne Saliou Diagne kan moy Serigne Saliou Diagne waaw Serigne Saliou Diagne ak donga la bu dëkk ci suñu wax Bawal mhm. lambay mhm. dëkk bu ñu wax Mbadiane Sambaawa mhm. fofu la juddo la yaraw sama ñaari wayjur ñi ngi fofu may profité di leen nuyu te di leen ñaanal suñu borom Yok seen fan yokk seen kàttan ba ñu gën ñoo gunge ba ci kanam ak kanam sama buntu ci Seexul Xadim ma hmm. bokk ci waa kër borom Daarul Muxti sëriñ Modou Maxtaar sama sëriñ sama wasila maa ngi koy nuyu bu baax baax di ko ñaanal suñu borom dolli ko tawfeex sëriñ Saliou Diagne daal ndaw la lañ nekk ci xasida yi am ci yéene fas yéene ci lëggeel sëriñ bi di tàllal ñëpp loxo di sàkku ñëpp ñaan ñaan suñu borom mu sàmm ñu ba ñu àggale amiin ñaan sa yàlla mu may ñu ak àggale yaakaar borom daaru la moom ci Cerno di ñaan Sëriñ Abbas mi fi bawoo fan yi sa yàlla doo leen gërëm ci kawam di ziare bàyyi mukarramo Seydina Alioune Aydara ñu ngi koy ziare baax a baax Sëriñ Saliou Diagne balaa ñoo tàbbi ci waxtaan wi dëgg-dëgg saxaar bu jibee gëlee ci xaside yi ñu door a tàbbi dëgg-dëgg ci waxtaan bi Sëriñ Saliou Diagne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 دم مريا وفي الأوتان أحسن الباقي من السيتان عندما مريا وفي الأوتان هبات ابتدأت بسم الله ووقفاني يأسب الملاهي وجعت كل الحمد وسكوري للمالك الرحمن وشكوري سكى الرحيم بالنبي رجيم وآله وصحبه نجومي بالله فارقت نزال غيره قد بلا تناول بالله فارقت نسارا جاولي وغيره قد بلا تناول إلى النبي وجدت قبل في النريق ما قد كفاني الهداك القدر للمنتقى وجعت في النقار ذكرا به قد ركب المكار للمتبع وجعت في سفينة قبل سنة يخلد في المدينة أخلصت خدمتي لدى كناكري للمصطفى الماهي بلا مناكري عرب مني قبل في كرم مساء مبارسي ولسواي حب سار ملكني الملك حين داومي ما خد كفاني الردى تزاومي نفاني النافع في لبرولي بما به يحبيتني كل ولي إلى النبي وجاءت حين دبافلي قبل بما بي أنا رما فلي للمنتقى وجهت في قبل بساق ما خد كفاني عدو حبساق سقح لسيتاني حين الواق كوني خديم من كفاني البلوى يسوق سرمدا لخير الله درا ولا إله إلا الله أواف كل من حلي أنكرا هند الإله والنبي لن يسكرا إلا سواي كل من لم يعوني ولسوى الله الولي المكون لخير كل من تكبرا باخر ماني بمزايا الكبرى إلا سواي ولخير المنتقى من لا يحبني ويلقى ما اتقى لخير ربي ولخير منتجب يساق من سعيد في وعتجب ردت أهداء الإله والنبي ولا يزال مبغلي بمذنبي نعم. جهادي الخداع وبيه ربها ولزوايا كل قلب نبها يندم في الدارين مرداني بحدل باخ فضل هداني من خير بسر ومن السيطان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 barke borom tuba jere jeuf Serigne Saliou Diagne ci njàngin wu am solo wi te dal te neex lolu ma sha allah Serigne Saliou Diagne Serigne Saliou Diagne bu ñu bëggoon xam deug deug Serigne Saliou Diagne lan moko duggal ci njàngum khassida Serigne Saliou Diagne. waaw di amane mbégte bu baax baax ci laaj boobu ndax njàngum khassida mom doon na loo xam nit ki du comme ni ñuy soyee métier rek mm-hmm. nga xam-xamee ne man métier mii laa bëgg a jàng mm-hmm. yokk la nga dem jàng toog mm-hmm. mu mokk nga wéy di ci jariñu ak njàngum xasida njàngum xasida moom nammuk bi da ciy jiitu ak dogaluk suñ borom nga soog nekk ginnaaw bi sëriñ bi dogalee ci ak mbaaxam ñun na nekk ay jàng xasida ay jàngkati xasida ñuy woy jur itam wax dëgg yàlla nàmpatal ñu ci mhm. ñu xam-xàmmee rek xamuñu ñuy dox ci lenn lu dul xasida ñun itam ñu daal di aw tànk yooyu mhm. suñu borom gàttal nañu ci sëriñ bi itam defal ñu ci tawféex mhm. ba ñu xam ñu ci ñu di ci yëngu loolu mooy sababu nekk jànkatu xasida bi jërëjëf Serigne Saliou Diagne xam ne dañ laa toog kantaan ci njàngum xasida waaye Serigne Saliou Diagne ku ne xam na ni jàngkatu xasaay yi dugg dugg def ko wax nga ko lu jiitu Serigne bi mooy nam mu ci yow loolu ba tax mu boole ci ñooñam nga di ko def waaye Serigne Saliou jaañ xëyul xëy rek doon jànkatu xasida am na ku mu doon dégg ba tax mu bëgg jànkatu xasaay ndax moom am na ku muy roy wala royul kenn yëf bopp rek la yow waaw Serigne Saliou Diagne Serigne Khadim Gueye mooy sama jëriñ. ndeysaan moom laay roy. Mhm. yàlla dafa dogal moom itam. Mhm. ñu am kóllëre bu yàgg. mu am ko ak suñu dëkk di Badiane Sambawa. Mhm. di profitoo di leen nuyu ñëpp. di leen ziar. Euh, tey ñaan suñu borom saxal fa jàmm. amiin waaye di ziar baax itam Serigne Khadim di ko ñaanal jàmm ak tawféex. Euh, yàlla dafa dogal ñu xam-xàmmee. Euh, ginnaaw bi sering bi namee ñu nek ay jànkatu xasida sëriñ Xaadim Gueye moom ka njëkk a miin ci jànkatu xasida ndax lu jiitu suñu xàmmee sax mi ngi jàng suñu dëkk bi Badiane Samba wax bi ñu xamee xàmmee itam yàlla dogal ñu war ko nek ñu bëgg ko lool bëgg am njàngam mu neex ñu lool doy ñu itam yàlla dogal ñu topp ko wax dëgg yàlla ba xam ci xàmmee ci mu doy ñu sëkk itam ñu yem ci ay fi mu leneen lu ci dikkal suñu yëfi bopp lay doon waaye baas bi lu ci ëpp moom Serigne Khadim Gueye la ñu topp. waaw. sëriñ Serigne Khadim Serigne Saliou Diagne mi nga xamante ni moom Serigne Khadim Gueye lay topp waaw mu mel ni Serigne Saliou xam nga roy daa bëri façon nit ki dina roy nit ki ci melokaanam nit ki dina nit ki ci na muy solo mbaa na muy waxee mbaa na muy jànge te it ngay roy ku jafe roy muy Serigne Khadim Gueye muy ci personnalité bi. muy ci xam kim doon muy ci mën a jàng bi Serigne Saliou boo ñu doon dikkal yooyu ana lan lañ ci wax waaw Serigne Khadim moom mhm. comme loolu nga wax rek mhm. wax dëgg yàlla naqari naa roy mhm. waaye neex naa roy itam ndax ci siraatul mustaqim rek la tege loolu moo tax neex naa roy eh, li ci xaw a sabab naqari gee roy tuuti rek xëy na mooy personnalité bu mu am Mhm. ak xam gu mu xam boppam dignité bu mu am mhm. macha allah waaye tam ak jom ju mu am ci liggéey bi loolu wax dëgg yàlla damay faral di wax ne mhm. euh, roy dafa metti roy ki roy moo gën a sonn ki muy roy ndax yow ki ngay roy moom sagoom lay demee sagoom lay demee bu mu ko neex rek mu jaar fa yow mi koy roy nag da ngay bëgg fi mu jaar fépp nga jaar fa loolu mooy waral mu metti Euh, saa déggee ñi wax ne roy du nuroog piir mhm. loolu daf lay soññ waaye day tax nga gën a góorgóorluwaat xam ne tey jii su roy doon nuroog piir mën ngaa àgg foo xam ne nii dinañ ne piir waaye du mës a ak piir kon góorgóorlu mhm. euh, li ñuy wax rek euh, mënuma dab diw moom loolu pexe seytaane la mhm. waaye topp ko nekko ko dina tax nga raw say morom ci loolu foofu lañ toll ci Serigne Khadim ndeysaan jërëjëf Serigne Saliou dina neex ba yegg ci loolu mënuma roy diw it pexem seytaane la loolu Serigne Saliou suñu waa ji jàngal nañu ko ba ñëwee nekkoo ko diw ndax nañ toppi woon Serigne Touba ndax mënees nañ ko am Serigne Saliou nee na sàllaaw ak ko ñu amees ko ne ko ngi daan amee waaye Serigne Saliou tey ñu dëkk ci njàng dëgg-dëgg njàng ak fu njàng toll léegi nga xamante ni ñu bëri daa am lu leen dugal ci njàng muy lan commerce ndax Serigne Saliou yoon woowu lan war a jaar ci njàng wala it nag dañuy xool luñ ci am rek xoolatuñ dëgg dëkk la ñuy dundal sëriñ bi la Cheikh Ibrahima Fall daan daan far defam sàllaaw dinañ jamono elyee dundal yoon wi wala dañuy dundee yoon wi ci jamono jooju lañ toll sëriñ Saliou naka ngaa bokk ci jàngiru xasida yi nga xamante ni say ñett abdu lañ yor rek fuñ dégg programme ne fa naam daraame sëriñ Saliou Diagne waaw loolu moom <laughs> dina doon laaj boo xam ne dama ciy sawar lool sax. dama ciy sawar lool. Mm-hmm. ndax man ni may doxee. Mm-hmm. képp koo xam ne nii am naa ci yow kàddu nga am ci man kàddu. Mm-hmm. loolu laa lay dénk. dëgg te yaakaar naa àdduna ñu ngi jàkkaarloog man tey di ma di ma seetaan. dëgg la kon boo ma laajee loo xam ne nii su ma ci tontoo leneen nit dégg ma am na mu demee man. xam ne li ma ci tontu fii ma toog tey bokkul ak li ma doxal ak moom. yaakaar naa dinaa ci am gàcce. Euh, laaj boobu dama ci sawar bu baax a baax. ndax euh, mënta ñàkk nag nga di ko gis. Mm-hmm. mënta ñàkk nga di ko gis ndax lépp loo gis. Mm-hmm. bari na ñu ci dugg tàbbi ci. Mm-hmm. bari na ñu ci tàbbi lool waaye kenn ku ci nekk ak li ci sa yéene. kenn ku ci nekk ak ni nga ci bëgg a doxee. bari na tey ñii ñoo xam ne dañ naan jànkatu xasida laa rek waaye duñ def seen xel mukk ci war a mag ñi nga xam ne foofu lañ toll tey. ñom ñu dem ba toll fofu ñu di leen fa classé mm-hmm. di lim mag ñu di leen limalé mm-hmm. doon ci magi jankati ëlëk ñom comme ni nga wax dañ koy dundé rek luñ mëna def ko seen affaire bax non rek lañuy def lool nak neex naa xamé lool tax mm-hmm. programme bo dem programme bo dem bo amé xel lu neew neew xam ci dara xam jang mi xam ni mu wara doxé bo sétantalé rek di nga mëna xamé ñi nga xamné dañu ñëw ngir jëtt seen bokku dem ak ñi nga xam ne dañoo ñëw ngir dundal xasida ngir dunde xasida mm-hmm. ndax xasida ku ko dundal di ko dunde ndax borom xasida yi dafa gore mm-hmm. boo ko lebalee ker mu fay la guddi mm-hmm. kon xasida ku ko dunde rek ku ko dundal di ko dunde waaye boo bëggee nag fexe ne da ngay dunde xasida rek sëriñ bi li nga soxla ci moom lool rek la lay jox daal di téye yëfam yow nag li la war mooy nga nga war a fexe bokk ci jàmbaari sëriñ Tuubaa yi nga xam dañuy lim ñooñ xasida ëllëg di la ci boole man damay faral di wax ne euh, programme bu sama yoon nekkut sama yoon nekku ca man na maa romb nag dund xasida taxaw seetaan su mm-hmm. boobaa la ñuy wax public man fa lay toog mm-hmm. xëy na nit dina ma xam ci xasida la dal na mu ba tàyyi waaye wax dëgg yàlla programme bu ma sama yoon nekkul mm-hmm. sama yoon nekku ca ndax loolu li tax mooy dañuy yëkkati luy lu lu am personnalité ci programme. Mhm. teg ko ci sa loxo. ñii def loolu nag buñ la rombee ci mbedd mi ngay ngay nga di ci boole yu ci bokkut. Mhm. am na gars yi lu ñuy wax nuñ ko lijjantee rek ah diw dafa man affaire. loolu sëñ Tuubaa moo gën a mën ñëpp affaire dénk ko say affaire rek mu lijjanti lépp kon man wax dëgg yàlla du ma dox ci yooyu njàng moom du ma ci commerce commerce bëgg da ngay dem ca marché ba waaye njàng moom su ma ci duggee mhm. man damay jàng ngir sëriñ bi rek mhm. dama ci damay xam ne nag lu ne mën na ma cee dab lu nekk mën na ma cee dab ndax sëriñ Tuubaa boo ko defalee loo man mhm. mu fay la loo mënut boo jéemee loo mënut ngir moom mu fay la lu la jomb loolu ku ko xool ci suñu di nga ko xam nekkul ne wax ji ndam la wala waaye déedéet sëriñ Touba moo mel noonu. Mhm. Serigne Touba moo mel noonu. laaj boobu laaj bu am solo la. laaj bu am solo sax rawatina ñi nga xam ne tey jii ñoom laa tollool jamono. Mhm. ñu mën leen a wooye ndaw ñi. Mhm. lu ci bare bari war nañ ko bàyyi xel. ma sàmba jànkatu xasida day liggéey. jànkatu xasida da liggéey da am looy liggéey nekk ca. ba xasida yi occupé la mhm. mënutoo dem ci leneen su boobaa nag nga bàyyi lépp féete xasida yi man loolu laa xam samay kilifa loolu lañ ma jàngal mhm. te su ma namoon a def leneen xam naa ci ñoom mhm. personnalité boo xam ne duñ ma ca bàyyi kon loolu wax dëgg yàlla dañ ciy sant bu baax a baax ma ci ñaaxaat sama ndaw ñi sama morom yi bu baax a baax ñu jéem a boole ko ak liggéey ak jaamu yàlla jërëjëf Serigne euh, Saliou Diagne ñu faxe fase ni futteeku xidma ndax yàqul dara ci liggéey bi jërëjëf ndeysaan kàddu yi nga wax moom la mbooleem seen ñi nga xaytan yi ñoo ngi lu jotaay bi te it laata ñu amal émission bi ñu bëri seere nañ kàddu yooyee ci yow ne Serigne Saliou Diagne ndaw la goo xamante ni métier bi daal jiitu xasida yi te it teewul bàyyiwul métier bi ba tey mu ngi ci métier bi yàqu ci dara Serigne Saliou ñoo ngi ñaan saa yàlla gën laa defal tawféex. bu mel ni Serigne dañ lay bàyyi rek nga bëgg laa soppe yi ci xaside yi ndax jotaay bi tey du mën a yomb ndax dañoo dalal koo xamante ni référence la dañoo dalal koo xamante ni adduna sëpp ñoo ngi koy bàyyi xel. ndax laata tàkkusaan li ma jot ci appel yaatu na loolu koo ci wax da laaj ndax émission bi noppi na wala noppeegul kon Serigne Saliou dañ lay bàyyi nga dégg laa soppe yi ci ñà xaside بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما يقيني إلى الجنة بما ليس يهمدون رسول كريم بي تنازار أحمد يقيني إلى الجنة بما ليس يهمد رسول كريم بين أنا أحمد وغالي الأذى والموت والجال سرمدا رسول سفي في برايا محمد محمد المختار لا خلق مثله لأمداله قدره هو العود أحمد أتاني بإذن الله جمت هباته بصير حبيب وال أسارى خبر محمد لقد جاءني في البر سفق بالورى على كل مخلوق هي الخلق تسجد مديه رسول الله ولي ليس يمحدى رواسي المفند ودادي لربي سكور يا النبي رسولا كريما ميس له ليس يولد لقد مان من سن المخفى محمدا يا كي وليلا مدى أو سيولد دهاني إلى مده سفيه محمدا اماني ومن لم يرى ولي فهو يقرد علمت لدى الأبرار والبر والمرار بأن المخفاسين إذا الخلق نفرد إذا ما مدحت المصطفى أرد فجوة أكون بها بسرا لمن دام يسجد مدعت الجواد البار زل البار مصوبدا ومن جوده علم هو أمن وحسجد أحيد الرسا ما سار سير سرمدا بدا مخجل الخبل الذي ليس يسجد كريم إذا تهو خاد للمنى ببسر وتامين تعبدوا سهام الأبادين الذي دينه الهدى وخاب الذي رب ورى ليس يعبد سكوري لربي من تداهي محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد ودوه إبا سيطان لدر مخافة لدى الله مكتوب دواما ولا خروا وجوه هدا ترا إلى خير ينسنا ولم ينهني من يزيد الحرب واللقوى وقايات باخل لم يسل خير حافز همدني كما تحمل الذي قلبه يهوى في حسن الحفيظ الذي له بلا سرقة كل كفى من هوى سهوى وحيث حلوما توس له القلب من خدا يروم الهدى بلا زم العفو والصفوى حسن ميعاد من حفيظها أدخله الله تبارك وتعالى في سنين لزين من دخل في نجاح من من ومن غدبه قد حنس البيت أول في القفران لجميع سنوبه وفجاة البسر وملازمة الأمن والسبايا والبيت ساني في الخروج من السكي إلى اليقين وانسرابه المكاره أبدا والبيت سالس في نجاة من الأحداء التي سارت سكرها لكتب التصوف والنجاة من درر الجبابرة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 sëriñ Xaadim Géey ci njàngin mu yaru ci xam kim doon moom sëriñ Xaadim Géey waaye ba tey dañuy xuus ci njàngin wi sëriñ Saliou Diagne bu mel ni léegi dañoo saytu daaj yi daa mel ni li mag ñi jàngoon daa jeex wala gaa yi dañoo bàyyi njàngin mag yi di jëlaat lenn te da nga ciy gis ñu jël ñenn ñoo xayta amaana sax méngowu noon ñoom ak doxin ñuy jël seenum xeerum daaj ndax ku ci mel ni Baye Cheikh Fall Xataaba ku ci mel ni Baye xaalis yi Baye Daraame ku ci mel ni Baye su Ndaw Baye Aline Fall njàng yooyu ñoom sëñ Mayib Guèye mag ñooñee Alaaji Cissé Serigne Khadim Diagne boo ñu doon diggal ci xeetu njàngin yooyu ana lan nga ñuy indil lan moo sabab loolu ndax dañoo topp àdduna rek wala ñoom dañoo bàyyi li fi mag ñi bàyyi woon dem jël weneen yoon bu bokkut ak yoon wi ci Saliou waaw Cheikh Massamba. Mhm. loolu loolu dina yaatu lool. Mhm. loolu dina yaatu lool ndax na mag ñi doon jànge mhm. ba tey am na ñu ko ci yor. am na it eh, comme ndax mag ñooñee Serigne Touba moo leen fàgguloon boppam. ndeysaan. waaye ñii fi nekk na ci ñoo xam ne Serigne moo leen fàggul boppam. Eh, li ñuy wax Serigne Touba tayam ju ne day gàcceel démbam. Euh, bu ñu yemoon ci démb bi mag rek. Mhm. kon day mel ni ndaw ñi amuñu tey. wallaahi. dafay mel ni. Mhm. danoo ubbi gaal gi xool mel ni lu fa gis rafle mhm. te loolu amul du mas am ci mbiri sëriñ bi. wallaahi. mënoon nañoo tege ne tey euh, may jéglu ci kàddu gi. Euh, njàngu mag ñi. ndaw ñi dinañ indi jàng mu wér. ku ci bëgg a jàng di indi jàng mu wér. wallaahi. di nga indi jàng waaye léeg-léeg nga lu ndaw. mu jàng ci njàngum mag ñi njàng moo xam ne sa yaram day daw sa yaram day daw sunu mag ñi nga xam ne ñoo fi nekk itam léeg nga déglu ci koo xam ne nii mm-hmm. yow mag ñooñu dañ la koy tegtal fekk woo seen jamono waaye boo sukkandikoo ci ñoom tey ji da nga xam ci ñoom lu wér kon jàng moom mm-hmm. ba fi ndaw ba fi mag ñi nekk itam noonu la demee woon mm-hmm. ku bëgg a jàng di nga jàng wallaahi ku bëgg a jàng di nga jàng Euh, donte ne ci njàngu mag ña ngay sukkandiku. Mhm. waaye donte ne itam da ngay dem ba sëriñ bi defal la tawféexi. Mhm. leneen dab la ci ndax euh, loolu mënu cee ñàkk. Mhm. Euh, sëriñ Tuubaa ku ko nekkal mu nekkal da koy nekkal ci fi mag dem ba leneen dab la loo xam ne ni yow lu jóge ci sa jëmm lay doon ba ñu fees ko dégg rek man la cee bàyyi xel kon loolu moom. suñu mag ñi dañ leen ci ñaanal bu baax a baax suñu borom dolli leen tawféex lii seen yéene ci xas day nañ ko àggalee te firdaw si waaye wax dëgg yàlla ndaw ñi fi nekk itam am na ñu ci bàyyi xel lool njàngum mag ñi am na ñoo xam ne ni ñu ngi yor seen njàngum bopp waaw di ko wéyal bu baax a baax te loo ci dégg rek man ko déglu macha allah. jërëjëf Serigne Saliou li fi mag ñi bàyyi am na ndaw yi ñoo xamante ni yor nañ li fi ñi bàyyi te ba tey du sàppi te saa boo koy jàng muy gën neex ku dégg xeetu njàngin wii nga jàng nga lii moom saf na sàpp mag ñi te it ndeysaan Serigne Khadim dama ko naw loolu. Serigne Khadim Gueye ku ñu sopp na ku ñu déggee la di nuyu Serigne Fall di sama xarit loolu mag moom ñu yàgg loolu Serigne Fall di nga xayta ni mooy faral di nekk si ginnaaw Serigne Khadim Gueye di ñaan saa yàlla defal ko tawféex defal ko saxat daare ni waaye ndeysaan ma dégg ci moom mu soññu lu am solo moom Serigne Khadim Gueye ci jàngatu xasida personnalité gi mu war a am buñ dee ba yem ak ñeneen ñi wàcc nañ suñu ànd tey si tey amul lu gën a riis doon jàngatu xasida amul lu gën a kawe doon jàng du xasida tey si tey kenn ku ci nekk da ngay gis koo xamante ni maanaam mu mel ni ñu jël ki nekk ci ligne bi ndax day mel ni boobu tey allahuma amin dégg nañu waaw damaa xaw a sori rek na indi maa ko war a delloo fu mu jëm dëgg la noonu la ko waxoon de waaw loolu moo ma la waaw kay damaa xaw a sori rek dëgg la dëgg la. waaw noonu rek la mel na ni bi <laughs> yow bég nañ ci yow baax Serigne Saliou Diop. <laughs> Serigne Saliou moom di sama mag. dëgg la di lépp ci man. dëgg la. yàlla dafa dogal mu génn comme noonu moo ko waxee rek. Mhm. waaye dafa amoon yéene indi ma ci otoom. Mhm. xaar ba ma noppi mu yóbbuwaat ma. loolu nag ndeysaan bi mu waxee ma xam situation ma xaw ko cay ñeewante lool. wallaay moo tax yëgluwaatuma ko ci sax waxaatuma ceeg moom dara. wallaay ndeysaan bàyyi ba ñëw jot rek mu daal di yolli ku ñëw. dëgg la waaye gis nga ko noonu. nekk na fu sori foo xam ne. wallaay te xam naa pësteefam. Mhm. lu mu la wax rek lu nekk ci moom la. dëgg la moom it mu doon jàmbaar joo xam ne. ku mhm. bëgg xasida yi la. yaa ngi ciy yëngu. ndeysaan ba ñu doon ay tuut tànk ay ndaw. mok mm-hmm. sering xaarit bi la njëkk a miin ci jàngkati xasida ndeysaan suñu ñaari dekk yi iya, matul ñaari kilomètre mm-hmm. ko ci taxaw di seen bañ a des kon na ci ñi man nampatal ci xasida eh, yi mok sering xaarit bi suñu dëkk jàngeen fay def fanaani na ba tay mok mm-hmm. sering xaarit bokk nañ ko ba tay kon maa ngi koy ñaanal jàmm diko ñaanal tawféex di ko ñaanal bépp jullit ak sëñ Cheikh Fall ñom ñoom ma ñaaw ñepp rek mboolem kurelam ma ngi leen nuyu di leen siyaar jërëjëf sëriñ Xaadim Diop doon addo foofee ci diwaanu Géejawaay moom it di jànkatu xasida gu ñëpp ràññee foofu ci Géejawaay yor fa kuréelu jànkatu xasaa yi ci kuréel gu yaatu goo xamante ni moom mooy seen am ànd kook sëriñ Saliou Diop mi sëriñ Saliou mel ni ñu tàgg woon fa am solo mooy ci sëriñ Xaadim Gueye ci personnalité bu nekk ci moom nga xam ne boo ko gisee xam ni kii kuy liggéeyal borom Tuubaa la waaye lu ñu sori foofu ndax dañuy njëkkanteeg wi ndax ñoo ngi siyaare waxtu wi waaye dañoo dalal koo xamante ni tey du mën a yomb Serigne ah, Saliou dañuy ñaan waa Rési ñu dimbali ñu doole ñu taa bi ndax xëy na liñ bëgg a développé tey ci émission bi xëy na xajul ci benn émission ndax ki ñu invité moo toll nii ni mel waaye Serigne Saliou niñ koy faral di waxee ci xelu xeetu njàngin yi mag ñi fañ tolloon démb di jàng gone tey si tey ñu bëri njar nañ ko njar goo xamante ni. te it warta mën a demee noonu. waaw ku ko dégg buy yàgg rek wala muy yëkkati di nga xam ni kii moom ma nga roy seen xaalis gi te di ko bàyyi xel. wallaay ndeysaan. waaw waaw moom ñi ma àndal daal man dama dama am cafel si ñoom loolu wax dëgg yàlla ni seen doxin dama ko rafetlu. ndeysaan ndeysaan. waaw maa ngi ñaanal suñu borom gën a jàpp ñu defal ñu saxal daare ni. jërëjëf jërëjëf sëñ Cheikh. waaw ba mboolem suñu bëgg suñu yéene taxas ne yëpp yàlla nañ ko àggale jàmm. amiin amiin yaa rabbi waaw sëriñ na Samb sa gudd fan bismi bismillah bismillah moo set waaw bismillah kooku ah ndeysaan si moom ñu ngi ziar baax alhamdulilah naka yi tey alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf jërëjëf yàlla na yàlla dolli amin barke Seexul Xadim amin amin amin yaa rabbi amin yéen ñaan leen yàlla dolli xéewal foofu jërëjëf barke Seexul Xadim jërëjëf sama rakk jigéen léegi suñu asan salaam ndeysaan topp ci man ñu bokk ñaari wayjur mhm. bokk ci kuréel bi def ci taxawaay bu am solo ndeysaan daanaka moom bu duggee rek duggaale na waa kuréel bi wallaay ndeysaan ak Serigne Cheikh Fall moomu gërëm Touba rek mhm. waaw amin amin yaa rabbi

alhamdulilah bisimilah abdoulahat ma ne ñu lay def bu baax a baax yokk ak wér amin amin yàlla bi ñu bokk ko barkin to Moussa Mouhamed ku baax ñu ngi koy ñaanal bu baax amin barke Seydou Khadim eh, jortam ak yéenem amin amin barkin Touba amin yàlla bi amin yàlla bi waaw Sintale ñu kontaan nañ bu baax a baax alhamdulilah

nakay tey mbaa yaa ngi ci jàmm alhamdulilah ñi nga am mbégte bu baax a baax di ñaan suñu boroom mu barkeel li des te taw fexeel bi barga seel xadim xanaa boo duggee rek duggaaleel kuréelu soppe yi ñëpp ndax boobaag léegi liñ bi sa xat na lool ñëpp a ngi taxaw bëgg tàbbi waaye yëf yi xaw xat kon ñi ngi am mbégte bu baax a baax ci teewaay bi amiin amiin yaa rabbi. wallaay dëgg la mbiri machine la. amiin amiin amiin yaa rabbi. amiin yaa rabbi ñu آمين آمين يا رب جرجف جرجف جرجف فاي الحمد لله آمين آمين يا رب آمين آمين بارك سيارة وخديه allahumma amiin amiin yaa rabbi amiin ñu bokk lépp jërëjëf am nañ mbégte bu baax a baax jërëjëf jërëjëf wallaay loolu koy dégg la moom xam nañ ko bu baax a baax jërëjëf xanaa di masaw ñu amoon yéene te jotuñu tàbbi rek Mm. jërëjëf jërëjëf ndeysaan euh, ndeysaan ngir ngërëmul sëriñ bi jërëjëf jërëjëf sëriñ Aliou Alaaji Faye suñu sëriñ di Fay bok ci kuréelu soppe bi ndaysan moy may profité di len nuyu bu baax a baax mhm. ci jitu bu baye lewin sen ndaysan ak bolem ko tàbbi ci biir rek ñu mhm. ci def ay taxaway yu am solo ndaysan mom mi ci walu bis yi nga xam ne ñaanal way daw yi li ajuma ju jot mhm. ak jangum kaamil mi boko ci yoro ndaysan kon ñu ngi ziaré ñepp rek ak sonu Aji Njaay bi génn legi ci la bok ndaysan ndeysaan ngi tek nuyu ko ci seen loxo rek ñu jàllale ko bolem ko ci nekk ñi am bëkk bu baax a baax ndeysaan jërëjëf sëriñ Saliou Diagne mboolem seen sopp yi nga xayta ni dugg nañ cofeel daa foor te daa métti kenn ku la sopp rek daa métti sàkkant maak mbooloo waaye noo ngi ñaan di ñaanal Serigne Saliou deer mi nga xamante ni amaana jotaay bi lépp moo ko waral waaye mel ni dañ la yi ni bàyyi nag ñoom nga béggal leen ci xasaayit mbaa ci Serigne Saliou mbaa ci Cheikh Ibra ndax li ci waxtu daanaka mat na bu yàgg waaye kiñ dalal moo toll ni ni ko waxee woon ci Serigne Saliou rek ay dañuy waxaat ak yow waaye di ñaan sa yàlla am nañ mbégte ci maanaam bàyyi gi nga bàyyi itte yi teew ngir Serigne Touba bu mel nii dañuy bàyyi nga béggal soppe yi foofu foo jëm rek ñu laytaayee ko jotaay bi tënkee ko jotaay bi ndax eh, suñ digg ak yow xajul ci benn jotaay barke Serigne Saliou mboolem seen ñi nga xamante ne amoon nañu yéen a tàbbi ngi leen di jégalu xam ni jotaay bi moo laaj ñi ni mel ndax it eh, wax dëgg. xanaa di sant bu baax rek mboolem ñi nga xam ne def nañ ci yitte. Mm-hmm. ndax lii dafa neex te rëy wax dëgg yàlla yitte ñi ñuy def ci xasida yi. Mm-hmm. ci suñu jëmm yi xasida yi rek moo ko waral. kon ñu ngi leen di masaw baax a baax ci coono yi waaye li tax coono yi duñ ko naw mm-hmm. mooy ngërëmul sëriñ biñ ci sàkku dañ leen di ñaanal rek yàlla nañ ko bokk am di barakat Seexul Xadim euh, émission bi am nañ ci mbégte bu baax a baax wax dëgg yàlla buñ fi doon ñendu ba ngoon it euh, du jeex te woote bi itam du dakk kon ñu ngi jaajëfal ñëpp ku dugg mm-hmm. ak ku amoon yéene te jotoo agsi di leen euh, tàggu ba beneen yoon incha allah xanaa ñu daal di dugg ci suñu jàmbaar ji rek سيخنا سالي هو نخمل لنا أم تاي أكل موما يوينا كو جاي خل يفار من يقنا ورسو فار نيسان جنگل موما تخمومور لرو بيديو يو خمل sëriñ Saaliwu yooy naa ko jooy xol yu foor man ñàkk naa wurusu foor jant la moom moo tax mu muur leeru biddiw yow xamal nu jëriñ weet këriñ weet daara yi weet xol yi weet yëgal jii fépp a weet kuy weeti lee te amatul miskin yi tey jii ñëpp a ngi jooy jirim yi ak fakir yooy gone ak mag ñaa ngi jooy mm-hmm. ku leen di woo nax amatul donga yi tey ji ñàkk nañ ma ngi kasa kasa u ni jëleete waa jandaan fa bi gone tamal aduna yaa ka mën a wor xamoo ku góor lu fi taxaw danga ko war saw melokaan amul solo Cheikh Saliou weetal nga noo sa dem gi daal jaaxal nanu yow la nu xam nga dem ba noo fu ñuy jëlee ti xel mu dal Cheikh Saliou mi moo nu daa xamal yàlla yeneen te ñuy tarbiya moo nu koy defal kuy wuutu ki ci liyaamatul mhm. jëfam ji rëy na seere ko mhm. kullu murid seere na ko mhm. ni moom taxawalu Serigne Salihou er bu yow mal xiyaam ram nu bunu fay saab bun farus ba di ba seet ngir ñàkku ñàkk yërmande mbake danoo amunul lam amunul te bëgg am la gaa ya jëf di amee ci kaw yërmande moo tax ma jug di la dagaan di la yalwaan ak a ñaan te xam naa ni képp ku la ñaan nga may ko gën di yërmande yërëm lu may ñu nii ñu lay ñaan te buñ ci gis benn safar may ñu la ñaanu te ñaan ko war mu ngir ma baatinam ba mu gën a yaatu ci adduna bi rek di ko mën a xel te ngeen tënku ci ngërëmul sëriñ bi rek bari na sëriñ Xadim yal na sëriñ bi wombatal boppam ba àggale leen ni aw yoon lépp lu ngeen yéene ki eh, rokk bi yàlla na ko suñ borom defal ba bari na sëriñ Xadim waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Saliou Diagne ñoo ngi am mbégte baax a baax ci jotaay bi di ñaan saa yàlla defal la tawfiq fépp fu ñuy dégg jànkatu xasaayit yàlla nañ la dégg ci lu baax dara jëy xasaayit yi ndax niñ ko waxee woon rek ci njëlbeen gi ku yaru nga te it képp ku seen ku bëgg lu baax ku la séenee jàpp la ngir Sëriñ Tuubaa Sëriñ Saliou Der ci tubaa Italie moom it nga xamante ni sabab gi lépp ci moom la jaaree duñu fàtte di ko ñaanal ndax ku am yéene la jànkatu xasaayit yi bu sañoon jànkatu xasaayit yëpp ñu dégg leen bu xasaayit bépp jànkatu Sëriñ Saliou ñoo ngi siyaare mboolem seen soppee ma Massamba Ngom Bichri ñoo ngi leen di nuyu di leen déggee tey ñaan sa borom yàlla defal ñu tawfeex di siyaare ñi nga xayte ni ñoo taarloon jotaay bi ba jotaay bi taaru di ci njëkkee bàyyi Ahmadam di ko ñaan sa borom yàlla defal ko tawfeex Ahmadou Kazaka di ñaanal Baye Gallo moom it Ousseynou moom it Kazaka Serigne Bara moom it Kazaka duñ ko fàtte mukk mukk mukk serigne ba mi nga xëyte ni mo nek ci montage yu am solo yi di ñaanal sa borom yalla defal ko tawfiq soxna Fatimata Ka dong koy ñaanal guddu fan gu and ak wër yi ñaanal ki nga ni sa mom lañuy andal suñu jotay bi muy borom lepp yi bax muy serigne mustapha Ngom mi nga xamanteni ku bax la te ku yalla baxal dong koy ñaanal sa borom yalla defal ko tawfiq defal ko sahad daare ni barki Cheikhuna Ahmadul Khadim daraji yénti alayhi ñoo ngi bëggee ñëpp di ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm réew mi yàlla def fi jàmm ndax jàmm rek mooy li gën jàmm mooy njëkk jàmm mooy mujj Serigne Saliou dégg nañ dégg nañ dégg nañ xanaa nga حمدي وزوري لمن كل به زاد Sari Nandu Nandu Tinhi Nazar